xibaar yi fii si UCAB FM Pape Serra Mbaye mbokk asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu dal leen jàmm ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi fii ci ndaam daaru alimul xabiir xibaaru digg bëccëg bi la gën a fës ci xibaar yi bokk na ca ñi jëloon place ci garage Dakar bu njëkk ba seen ay place yi saafara jaroon na taskatu xibaar yi indi ci ay leeral dañ ci dikk gën ko yaatal ci biir jotaay ko xibaar taxaw askan waaye tam jotaay waxtaane amal nañu ko fa seen ay kàddu dinañ teewlu ci biir jotaay ko xibaar yi Bali soxna Soxna Bali Muntaxa lëkkaloo ak mairie bu Touba ak waa UCG. di seetal lenn ci xàll yi dëkk bu sell bi ñu ngi woon nag ci diggal bi doon diggante eh, tali bi ak eh, jàpp eh, fii di école Al Azhar yi daar ci wetu ICAP foofu yëpp ñëw seetal ko dindi li nga xam ne kon moo di suuf si loole nag lu jëm ci wàllu liggéey ba leer li amal nañu ko danañ ci dikk gën koo yaatal ci biir jotaay ak xibaar yi. jàngatu baay Cheikh Cheikh Amar di ci ànd ak ñun moo na ba këmmal jotaay bi ne tuuti di ci faram-fàcce gi ndeem soob na sunu borom. xibaar yi fii si UCAB FM Pape Cheikh Mbaye mbokki asalaamaaleykum daal leen jàmm ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawoo ci ndaam daaru alimul xabiir xibaaru digg bëccëg gi tey di altine dëppoo fukk ak juróom-ñaari fan ci weeru tubaab di weeru avril atum deux mille vingt di ñaar fukk ak juróom-benni fan ci weeru wolof di koor ci atum junne téeméeri ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay gi waxtu ñu ngi ci quatorze heures trente ñaari waxtu ci bëccëg fanweer ak ñaari simili ci koom rajo ngeen di ñu déglu ci téeméer ñett yu tombal juróom wala ñett double point sunu fm point com télévision tam bu leen neexee ngeen seetaan ñu ñu ngi ci en direct jamono ji ci YouTube wala Facebook fu ngeen bind UCAD TV live di ngeen ñu fekk. bu leen neexee itam ngeen def ñetti w point a2i tv point net xibaaru digg bëccëg bi. groupe de communication. université Cheikh Ahmadou Bamba. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi dal leen jàmm ci rajo ci télévision UCAB xibaaru digg bëccëg yi dañu koy dooree ak ñi jëloon ay place ca garage Dakar bu njëkk ba daanaka juróom-benn at nee na mu ngi boobaak léegi place ya ñu fa jëloon. yenn yëtt naa egg ya ca des tàmbaliwuñu ko sax ñu ne ne ko fu ne tucc tucc nañu fa gësam nañu fa ngir man rek jot ci seen place yooyu boobaak léegi nag ànd ne sa dew Malick Niang ba nga xam ne kon moom mooy promoteur bi doon tabax lu jëm ci wàllu woowule fu ne fëgg nañu ko fa ba ci mairie bu Touba lu ne gësëm nañu ko amaguñ ca benn saafara moo tax tey jii ñu xëy woo taskatu xibaar yi ngir rek loole di seen jooy xol yooyu ñu mën koo gaaral ca jotaay ba amal nañu ko ca nag kii di Cheikh Sall mooy kàddu ko mbootaay gi leen lëkkale doon collective bi nga xam ne kon moom la ñu fa taxawal ngir rek jot ci seen place yooyu de nekk ca garage Dakar bu njëkk ba Cheikh Sall la mu ca leeral ñu àndoo teewlu ko. li ci turu collectif bi nga xam ne yow bokk nekk ci garage bi li ma yor nii ay rosi la yoo xam ne fay nañ bu yàgg mat na ñeenti at. boobu ba tey ñi ngi daw waaye li ñu fendoon ci lay tàmbali mooy bi ñëw ci garage bi fekk benn contrat ak benn promoteur bu tudd Malick Niang Modou fay moo ko doon liggéeyal moo nekkoon secrétaire moom lañ jëflanteeloon ñun ñëpp. bi ñu demee ba nga xam ne ni liggéey nañ ba àgg suñu payable yëpp ñu fay ko ba mu pare bu ñu daggal ñu reçu yi man na ñeenti at man sama bopp laay wax maa fi ñëw 2017 juin 2017. suñ koy xool kon ten bientôt mois de juin bi ci lay am 6 ans te am na ñu ma fi jiitu boobaa léegi nag yàgg na fay nañ ba pare ñu ngi topp di daw mënuñoo fexe fexe ba génn ci te waxuñu lenn lu leer. bon boo xoolee nag fi mu toll bi yàgg na trop fu ne dem nañ fa it fu ne dugg nañ waxtaan bi waxtaan nañ ko ci biir néeg waxtaan nañ ko ci ay ëtt tey la agsi ci penc mi moon naa ñàkk nag waaye du ñu tontu moo tax ñu agsi fii hmm. bu ñu sañoon ñu lijjantiñu benn yoon ndax lii mënoon naa ñàkk te bëgguñu ko te soxlawuñ ko waaye nag daa mën na ñàkk moo tax ñu def ko hmm. am na kilifa goo xam ne mi ngi ci biir kuréel gi ma nga dëkk ba mu dëkkoon fa lu jógee ñëw jënd kër jaay këram jënd kër Touba jaay place ba mu liggéeyee jënd place fii mu gàllankoor mu delluwaat fa mu nekkoon jënd fa place luy waat place ba di fa liggéey loolu doon loo xam ne lu méttee métti la te bu ñu sañoon nag ñu dimbali ñu lijjanti ñu suñ li ñu jàpp ci liggéey ndax loolu rek mooy suñu yite ñun du leneen bon promoteur bi nag moom la ñuy waxal ndax moom lañ jëflante loolu mboole ñu ak moo Modou Faye ñu liggéey ak moom liggéey bu set te kenn yëgu ko woon promoteur bi mooy Malick Niang secrétaire mooy du Faye bu ñu demee ba agsi fii nag kon ñoom ñoo war a taxaw wan ñu lu tax lii gàllankooru ba ñu mën cee génn te ñoom dañuy def seen ginnaaw waaye dañ leen chargé nag ndax tamit ñoom lañ jëflanteel jëflantewul kenn ku dul ñoom kon nag ñoom ñoo ci mën a taxaw wax ñu lan moo xew te it bi ñu leen wax benn yoon lañ ci mas a wax ak ñoom te ñun ñoo leen fekk ba kër Mariña waxtaan ci ak moom dégguma benn yoon nit bu mu ci wax ak ñun kon nag dafa jot mu ñu wax ñu lan moo ko téye ak lan moo ñu téye ñu bokkul jëntu ko ñun ñëpp loolu doon kàddu yi Cheikh Sall mi yore euh, euh, kon Cheikh Sall mu yore kàddu kuréel gi leen lëkkale doon collectif bi nga xam ne kon moo lëkkale euh, ñoo ñi nekk foofu foofile keneen ci ñi nga xam ne kon yor nañ fa place te nag daj lu ne boobaak léegi mu të egg sëriñ Abdoulahat Dem lay wuyoo moom itam bokk si ñi nga xam ne kon ñoo fa am jafe-jafe yooyu la moom Abdou Dem jot naa dellu si ci fa mu ca jaar ca place ba la mu sa jot ak itam jéego yi def nañu ko ca jafe-jafe yu mu ko ca dund kàddu yi fësal na ko ca ba tey ñu teewlu ko ci micro Moustapha Ndiaye ma ñu fa teewloon. sonn ak jaaxle moo ñu yëkkati. collectif bi yeex naa cee dugg waaye laataa ma ciy dugg it fekk na ma ndox individuel ba sonn ci laa door a dugg ci groupe bi. biñ ci ak léegi it fenn fu nekk li ma fekkee dem naa fa ak liñ ma nettali ndax man Malick place yii ñu toog fii ñu defee conférence bi moo ma ko jaay yii yii yu noppi la moo ma ko jaay yi ci gannaawam yu noppi wutoon la man maa ko tabax yii ci kaw nag laa am yoo xam ne noppee gut kon li ma jaay leer na ndax jaay na ma ñett yii egg na yii eggagul yii tabaxuñ ko yi eggoon jël naa ko yi eggutoon egg yi tabaxutoon tabax naa ko yi eggutoon mënu ma koo eggale te li ñu tee mënuñoo xam lan la te am nañ kayit yu leer contrat yaa kii yaa ngi nii ay contrat la ñu tegal yoo xam ne signature suñu bés Abdou Khadir moo ci nekk ak kas xalif général murid li koy firndeel barki dem bu ñu toogee ak Abdoulaat monsieur le maire di wax ak moom def nañu soo ngeen gisee ma leen di déglu parce que da ngeen di jënd lu leer loolu moo tax te ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci garage bu njëkk bi ñoom it biñ ñëwee di jënd fii dafa seeroon ci ñoom ñu dem ci sëñ bis Abdou di ko jooytu mu xamal leen ne leen Malick moo moom moo fii moom lañ ko jox kum may nga am kum jaay nga am te ñun kaddu suñu bés Abdou Khadir ñun dañ ko deful kaddu moom kaddu moom porte kii dañ koo def kàddu goo xam ne kàddu la du suñu kàddu yii loolu moo ñu engagé loo man mii di wax ak yéen sama kër laa jaay fuuta jënd si fii bëgg ñibbi si dëkk ci dëkk bi di fi liggéey fii laa dëkk fii laa nekk mais dama ne naa jaay li ma am fee indi ko fii boobu ba léegi nag ñu ngi jóg di daanu leb banque yi dugg ci ay natt leneen nga dugg ci sab xaalis tëdd mënoo fexe fexe ba liggéey te nag fii bañ koy jënd nag kenn ñemewu ko kenn soxlawu ko léegi nag Touba àgg na foo xamante ne bii dayo bi fii am na valeur boo xam ne amu ko woon ñu bëgg ko faqat suñu loxo di ñu jaay doole te loolu ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ndax xam nañ li ci xew lépp waaye nag dañ cee mënu dara comme mënuñ ci dara nag te am na fu ñu ko mën a jooytoo ñu ne nañ leen woo presse bi jooytu ko fi bon Abdoulaye Ka nag bi ñu mujjee gisee ak moom barki démb bi ma toogee daf nañu mënuma ko lijjanti ndax lam teg ni mën koo lijjanti mooy ñun ñu wutal ko ay kayit bi ak euh, place yi li ci jar ak li ci des euh, ak lan ak contrat bi. te lépp luñ ci soxla moom compétence am dépassé nañu dépassé ñun kon loolu xam nañ ñun loolu ay tapale la parce que loolu bu fekkente ne bii bëgg na ko xam na fi ñuy jaar. ndax Malick nee na ko sëñ Bass Abdou Khadir wooyee dina ñëw te Abdoulaye ni mu wutale sëñ Bass Abdou Khadir mu woo Malick kon am na lu nekk ci ñoom loolu ñoom la concerne ñun jëmuñu koo xam ñun liñ soxla mooy ñu jox ñu suñu yëf. ñu liggéey ko ndax boromi njaboot lañ ñii Italie lañ nekk ñii Espagne am na ñoo xam ne ci dëkk bi lañ dëkk mais seen kër sax dañ koo jaay kër dañ koo jaay ndax am engagement ci xalif général di Mouride ndax ñun dañoo am gëm-gëm ci xalif général di Mouride kàddoom duñ ko foyee duñ ko caaxaane gannaaw jox nañu ordre nekk place bii garage mooy nekk garage Dakar loolu moo ñu engagé loo bañ jël liñ am def ko ci am na ñoo xam ne seen i takkaay jabar lañ jaay am na ñoo xam ne ay natt lañ am na ñoo xam ne ay xar lañ jaay li ci am kenn mënu la ko wax groupe bi fii am na ñoo xam ne mënuñoo ñëw sax ndax amuñu paas loolu nag lu métti la loo xamante ne bii ñu ngi koy jooytu fa na nga koy naqarlu ba fa di yem jàpp nañ ne ko ci luñ jàpp ñun parce que xalifa général murid jàpp ne moom ci baaxam ak ci yërmandeem bu yëgoon coono bii ñuy dal yaakaaraan lijjanti na ko daal fu suñ kàddu mën a yem ñu ngi koy jooytu keneen koo xam ne ëpp ñu compétent te ñu dimbale ngir développement dëkk bi hmm. parce que it bi fi ne nii def nañ budget 4 milliards benn dërëm bu dugg ci garage bi dégguma ko dégguma ko bu fekkee am na na ko monsieur le maire leeral dégguma ko benn yoon te garage bi lu ko gën a am valeur amul fii ndax bu foo jógee fii mooy xar kanamu dëkk bi boo fi wàccee ay mbalit ay yu bor rek moo fi nekk jàkka ji nga xam ne néegub yàlla nga xam ne moo gënoon ñor Serigne Saliou mënuñ ko eggale ay woyo fay fanaan buñ sant sant woon ciment tey ba koo kar wala ñu eggale ko ñu kii te ñun buñ ñu bàyyee mooy ay place parce que man mii di wax ak yéen deseel naa Malick kon man man Malick ko ameel deseel naa ko weccet te am na ñoo xam ne deseel nañ ko waaye am na ñoo ñu nañ russi yaa ngi nii léegi nag ñu mooy suñuy place ñu eggale ko ndax ñun liñ jënd leer na jënduñ fu nekk ci am mbedd jënduñu foo xamante ne bii dañ koo tere liñ jënd lu leer loolu doon kàddu Abdou dem kenn ci borom place yooyu di fàttali kon ca garage dakaar bu bees bi la coow li am muy doon kon place yooyu nga xam ne. Euh, kii promoteur bi di Malick Niang kon moom la nu ci séentu ngir rek mu indi leen ci ay leer ci loolu di seen jafe-jafe ñu ngi ci dund waaye tam euh, kilifay bokk moomel gi bëgg nañ ci ñu taxu leen jot ngeen a teewlu kon ñi nga xam ne kon euh, ñoom ñoo yëngatu foofile te dugal ci seen xaalis di séentu ñuy jàpp leen ca foofee ca garage Dakar bu bees bi ak place yi nga xam ne def nañu ko fa. 14 heures di ñaari waxtu ñeent fukk ak benn simili moo bootu ci koom xibaaru digg ba ci gi ñëwee nii. rajo. UCAB FM. 103.5. ñett yu tombal juróom rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawa ci ndaam daar waalimu xabir ñu wax rek ci euh, waa fondation Soxna Baali Muntaxa àndandoo ak mairie bu Touba waaye itam ak ñi nga xam ne euh, ñoom ñoo di waa UCG ñoom nag euh, seetal mbedd yi. yenn ci ay ruq yoo xam ne jafe-jafe lañ ca am ngir rek dem ak dikki waaye itam taar bi ci xool jekkul woon ñu ne nag loole bëgg nañ ca am saafara waa fondation Soxna Baali taxa def ay pexe ki jéego waxtaan ci mairie bu Touba ñu jàpp leen ci ay jumtuwaay démb nag tàmbali nañu liggéey bi xàll wi euh, jóge ci tali bi jóge nekk diggante Mbàkke Touba jëm ca école Al yi la fa nekk lépp ci ay ñuq ñuq ñu ñuqarti ko mbalit ma ñu dindi ko euh, an suuf sa lenn la ñu fuug ko loole yëpp nag doon liggéey bu ñu ne lañ ci jublu rek mooy gën a taaral xar kanam xool bi kenn ci ñi nga xam ne kon ñoo nekkoon ci wàllu ko liggéey ba Wadd Murit lay wuyoo ko ci fondation Soxna mun taxa liggéey ba leeral jot na ko ci amal lay sabab see ak lañ ci jublu ay kàddoom Wadd Murit ñu teewlu ko. liggéey bi lu ci ëpp ñoo ko coordonné fi mu nekk nii. sëñ Moustapha Signor Lo ànd ak bonne volonté yi commune euh, UGC euh, ak ak soxna fondation euh, soxna Bally Mountakha liggéey bi nag euh, yaakaar naa ni buñ ci noppee danañ yéex nañ koo def waaw mooy liggéey bi ngeen gis fan yi rek sëñ Mountakha santoon ko Baye Fall yi ci loolu nag ñun lañuy daal di sofaat suñu taxawaay ndax ku ne xam na ni murit moom ndigal rek lay wéyee te loolu ab tàmbali la woon bu ngeen amee seetlu sëñ Mountakha bi mu wooyee Baye Fall yi sant leen li mu leen sant Baye Fall dañoo tàmbali wane yoon moo tax sëñ Moustapha si ñëru loo nag bi mu gisee loolu wooñu waxtaan ci ak ñun ñu rafetlu ko ànd ko ak moom ne ko ñun lu ñu waaye woo ci Serigne Touba ñoo dimbali ba ñu euh, dooree liggéey ba fi ñu wax nii. koor moom mosuñu ko jéeg dañoo wax suñu xel dafa dem ca xare Badar dem ca atum carrière ma waaye dem ca xeeri jumaa ja ndax moo moo gënoon a tàng lii gënoon a métti lii moo tax yokkatuñu benn yoon delluwuñ gannaaw daas fas yéene dëgmal ko rek mu mu jëm kanam nu ànd koog moom ànd koog suñ muntaxaa rek tañaan yàlla mu yàgg fi te wér ñu taw ko ba du laal suuf lépp lu empêché daal voie publique yi maanaam ci mbedd yi nga xam ne surtout euh, deux voies yi nga xam ne bu màggal Tuubaa jotee day day xat ba nit ñi duñ mën a jàll jëm dem fañ bëgg a jëm di teggi déviation yooyu nag daa am yoon yu am important yoo xam ne gis nañu ni moo gën a gaaw ci ñu jaar fa dem pour ñu mën a dem fañ dem màggal màggal gu neex yoon yooyu nag euh, cité nañ ci yu bëree bare bëri bii ab tàmbali la rek waaye incha allah taala ci yëpp la ñu dem aménagé leen yaatal leen leeral leen ba ñu leer nañ ñu waajal màggal gi lii mooy liggéey bi tàmbali nañ ko fii ci promobile bi ci xàll bi jëm euh, Al Azhar école yi Serigne Moutala euh, Touba Ndam macha allah gis nga fii euh, amagum nañu fi mu nekk nii téeméeri mètre lu topp noonu lañ koy toppee nag incha allah liggéey bi bi ñu ko xaymaa tey toll na ci 3 kilomètres et incha allah tey jii fas nañu ne balaa jant bee so ñu ndogoo ko incha allah balaa jant bee so ñu yendoo ko woore ko waaye incha allah taala ñun ndogoo ba du taxaw su ko bu ñu fi jugee beneen benn la ñu wax waaye mbedd moom incha tey moom day daal di pare sant bonne volonté yëpp nag surtout euh, fondation Soxna Baali Mountakha euh, surtout euh, monsieur le maire délégué na Alim Badara Niang conseil municipal waaye Alim Badara ci taxawaayu Murit Baye Fall taxawaayu macha allah taalibi Serigne Touba bëgg Serigne Touba lool te bëgg li muy def. foo ko fekk laxasaay gaa ngi ci digg li du tekkee mukk moom moom moom moom Aliou Badara ñu gën ko xam ci àll ñaa macha allah euh, liggéey bi sant sant na ko sant leen yéen yéen ñi nga xam ne yéen yéenay euh, journalistes yi nga xam ne yéenay jàllale it macha allah liggéey bi. loolu doon kàddu yi Wade Mouride bokk ci fondation Soxna mun taxaa doon rek indi ay leeral euh, ci lu soxal taxawaay bi nga xam ne kon nemmeeku nanu ko ci wàllug liggéey bu ñu ngi koy amal mu doon fondation Soxna Baali taxaa àndandoo ak mairie bu Touba lu jëm ci wàllu ko liggéey boobee sax mairie ñi ngi yabaloon kii di Serigne Alla Niang àndoon ak fondation bi ngir ñu amal lu jëm ci wàllu ko liggéey bi leeral yu jot na ko caa def Serigne Alla Niang ci turu mairie bu Touba ci setal gu doon na ko setal lenn ci ay xàll yu nekk ci digdigal bi ñu àndandoo teewlu ay kàddoom ba tey. xalaat bi mi ngi jógee ci Moustapha Lo Junior parce que xay na ruq bi dafay dugg gis daal ni mu mel ci ay taq vraiment mu amoon yéene lu ko setal niveau de la commune wax dëgg yàlla toog waxtaan si ak maire maire woo ma euh, demande na à que na mobiliser ay moyens logistique surtout yi nekk commune suñu camion yi euh, jokkoo si ak waa UCG pour que ñoom aussi ñu yónnee seen logistique bu ko defee ñu xëy si fi tey ànd si aussi ak Touba ca kanam sollicité woon nañ leen aussi pour ñu ñëw ànd ak ñun ndax boulevard bi nga xam ne moo tàmbalee si euh, deux voies yi jëm ci université Cheikh Ahmadou Bamba bi dafa bari ay taq-taq yu fi nekk yu nga xam ne ëpp na lool mbalit ay ay ay dépôt yu méttee méttee métti moo fi nekk ay gravats lu ne moo fi nekk bëri na trop trop boo demee ba ca kaw ne aussi axe ba nga xam ni mooy 20 euh, mètres bi jóge foofu ba dem ca pencum wuti Daaru Salaam moom aussi ci la bokk moo taxoon vraiment ñu tàmbalee fii pour que ànd ak ak bokki taalibe yi ñu àndal wax dëgg yàlla ci ni ma la ko waxee rek lëkkaloog euh, vraiment commune Touba Mosquée lëkkaloog euh, fondation Soxna Bali Muntaxa ànd ak waa UCG waa tubaa ca kanam euh, nga xam ni ni ñu ko màndaxale bisub tey bi bon volonté bu la ko tuddee cest di action bon volonté la ñu ko tuddee àndante ko ak acteurs yooyu yëpp vraiment ni ma ko waxee Touba ca kanam mu ngi si vraiment commune Touba Mosquée ak logistique am UCG bokki taalibe yi ak fondation Soxna Bali Muntaxa Euh, vraiment loolu lépp ngir bëgg rek dëkk bi ni ñu ko defee ci yeneen gox aussi fii doon béréb bu nga xam ne béréb bu am solo la muy ndaam te ku wax ndaam ku ne wax euh, sëñ Ndaam Abdourahmane Lo ak li mu doonoon si euh, Serigne Touba daara ji nekk fii bërëb bi nga xam ni njaboot geeg taalibe yi tàggat nañ fi ñu bëree bëri wante wëlbatikuwaat Serigne moor Mourtala ku ne xam na ko ak institut Al Azhar bi mu yore fii nga xam ni ay kilifa rek ñoo fi dëkkee wante bérébu wax dëgg yàlla environnement boobu ñu dëkk ci di ko seetal di ko nemmiku vraiment loolu moo taxoon tey ji vraiment ñu jàppoon ko xëy si muy dimanche euh, xëy na koor la tàng na metti na wante terewul nag euh, ànd ak bokki taalibe yi rek yi am loolu ñu wax rek une bonne volonté ñu waslu ci àq ba vraiment béréb ñu mën ko rafetal ba mu set wicc bu ko defee li ci def nag ñu sàkku ci population yi rek ñu sàmm ko ndax nag bu fekkee dañuy defar tey ëllëg aussi ñu amaat les mêmes vraiment gënul te eh, li ci nekk rek noonu ma ko junjee ay kilifa rek ñoo fi ubbee ay kilifa rek ñoo fi dëkk bu ko defee ñoom ci seen wàllu bopp tamit ñu tàmbale ci seen bopp tàmbale ci seen njaboot sant leen soññ leen ba vraiment fii ñu mën ko mën ko sàmm ndax ni ma ko waxee béréb bee nga xam ne mooy étude al azar bi wante UCAB ba ngi nii jàkkaarloo wante këri kilifa yi fi nekk nii ñu bàyyi mbedd mi mu mel nii ci ay taq-taq loolu vraiment gënul bérébu siyaarakaay la bérébu sàkku xam-xam la bérébu investigation bérébu sàkku yokkuteeg dëkk bi la euh, loolu la béréb bi laaj kon nag vraiment ñëpp war nañ ci war nañ ci euh, bay seen bay seen seenu laaj ci yéen nag vraiment dañ leen di sant ndax béréb bi seen béréb la euh, xëy na c'est de manière spontanée ngeen gis ñu rek ñëw couvrir événement bi wante loolu dañuy sant bu baax baax di sant Pape Sayar sant Cheikh Amar di delloo njukkal nag euh, Serigne Mame Mor Mourtada mi nga xam ne ndax lépp lu nga xam ne ñu ko yëngu rek ngërëmul Serigne bi rek lañ ciy sàkku te lépp ndigal la lu tukkee ca sëñ Mountakha euh, jaar xëy ci soxna Bali jaar ci Moustapha Go mu ñëw commune toog maire wax ko moom maire woo ma ma toog mu jox instruction à ce que nañu ànd ak ñoom lu ci war nañ ko def loolu moo waral taxawaay bi kon nag yéen vraiment ñu ngi leen sant leen bu baax a baax encore une di inviter les populations rek ñu jéem a cultiver développer les bonnes actions mooy jéem dëkk bu tedd bi di Touba kenn ku ne fu mu fi nekk fu ne c'est-à-dire di ko sellal di ko setal def ci baax parce que dëkk bi daara la dëkkub jaamu yàlla dëkkub euh, wéetale suñu borom la kon dafa war a sell dafa war a set bu dee su la bàyyi rek lu neex waaye nga sànni ci mbedd ni lu neex waaye nga jal fi lu neex waaye nga nekke fi loolu ku ne xam na ni loolu dëppoowul ak dëkk bi te àndul ak ndigalul sëriñ bi ku ne gis na rek fan yee ci ginnaaw sëriñ bi euh, li wër corniche bi ak yenn artères yu mag yooyu ni mu demandé à sant ko waa kër pour ñu sellal ko war na attirer attention nit ñi ba kenn ku ne fa nga féete la xew foofee lu sa mbedd ruq-ruqe loolu aussi bu ko fa seetaan bu ko fa def bul bàyyi kenn aussi mu ko fay def lu ñu teg ko ci mbedd mi lu nañu def ko ci mbedd loolu moom dafa war a dakk ci Touba Touba mérité ko vraiment kilifa yi nga xam ne ñoo fa ubbee aussi mérité wuñu loolu ñu di ko def seen buntu kër UCAB FM mbokk yi ngeen di ñu topp ba tey ci xibaaru digg bëccëg gi ci rajo ak ci télévision bu UCAB YouTube ak Facebook bu ngeen fa demee UCAB TV live ngeen di bind ngeen fa jàkkaarloo ak ñun ci xibaaru digg bëccëg gi rajo bi ñu ngi ci 103.5 wala ñett w point sun fm point com waa assis ña nga woon ca jumaa ja doon xool liggéey bu waa Muxaddamatul Xidma ña ngi ko fay def ñu ne nag eh, la ñu fay def eh, neex na leen te itam rafetlu noonu ko lool jotaayu waxtaane waaye itam ndogu yi nga xam dañ koy baax askan wi ñu ne nag lépp lu nu mën rek danañ ko ca def te nag sax jéemu ñoo xam la nu fay def fu ñu koy dugal fu mu jëm la nu bëgg rek mooy di tàbbi ci liggéey bi def ca la ca war ñenn ca jëwriñ yi la nga xam ne kon fësal nañu ko fa ci ay kàddu foofee ca jumaa ja ci turu ACIS doon kuréel gu lëkkale commerçant ak industriel ñu àndoo leen ci turu association des commerçants et industriels du Sénégal ACIS ci turu le président Fallou Gallas ak mboolem bureau exécutif bi yëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol waa Muqaddamatul Xidma ci njur sëñ Abdou Lahad Bousso ak mboolem ñi ngànk liggéey bi yëpp. liggéey bi di liggéey bu rëy a rëy comme ni nga ko waxee liggéey boo xam ne yàlla defal nañu sutura ba ñun commerçant yi ci ñu ko sosoon lañ bokk. ci ci ñoom mooy mooy Baye Moussa Mbaye mi nekk sama ginnaaw nekk suñu kilifa ak yeneen kilifa yi mu àndoon liggéey bi ba tey liggéey bi di dox dañ koy ànd ak ñoom ñoom ñu leen di ñaanal yàlla yàgg na fi loolu te wér ñu jàpp ne fii ci jumaa ji lu fi nit def ñun nga ko defal ak faneen fu ci jumaa ji mbooleem liggéey Sëriñ Tuubaa yi rek jàpp nañ ne ñun commerçant yi Tuubaa yi lu fa nit def ci dërëm ñun nga ko defal ndax ñun la war kon bu ndikkee tey fekk lañ commencé woon ay at ci ginnaaw dikk fekk mu mel nii loolu ak cant yaatu yaatu lañ cay am waaye daf daf ñuy gën a soñu nag ñu war a gën a takkaat laxasaay bu baax a baax ba euh, xam ne fii yéeg ci kanam fépp fu mu war a àgg ñun ñoo ko war a àggale te incha allah danañ ci gën a jaaju di gën a soññaat suñu membre yëpp yi nekk fii ci Touba ak partout ci Sénégal waaye partout dans le monde. béréb bi nag li tax mu am solo mooy ñaar dafi daje muy bi ci jiitu mooy joxe aw ñam ak tasaare xam-xam. ndax dañuy dundal ruu yi ba pare dundal jëmm yi dundal ruu bi ci jiitu mooy xam-xam mi nga xam ne taxawaay bu am solo la am ci diine waaye am taxawaay bu am solo ci yoonu murit sëñ bi liggéey ci lu bëree bëri soññee ci lu bëree bëri bu waa Moukhaddamatoul Khidma bi amee yittey taxaw taxawaay bu mel noonu tey ñu doon waxtaane thème bu am solo muy université ban impact la war a mën am ci dëkk bi ci ëllëgu dëkk bi nekk lu am solo ñun ñii daje gis suñu bopp ci thème boobu noonu. ndax dafa am lieson directe ak suñu liggéey bu loolu jàllee tamit muy joxe ñam rawatina ci weeru koor nekk lu am solo loo xam ne dañuy gën a soññaat ñun en euh, tant que ay yaxantukat ndax wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa xayrur raziqin boo ko defee nag rawatina nga def ko ci koor loolu day gën a tee am solo waaye euh, moo waxaat faneen ne joxe ñam sax day day day waral nit ki dugg àjjana kon loolu nekk ab soññi boo xam ne wuy tamit taam ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira innama nut'imukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura bam naan wa eh, jannatan wa harira nga xam ne day tax a dugg àjjana kon kon loolu day waral ñu gën a soññaat suñu membres yi ñu gën a góorgóorlu ci ci liggéey bi tey it wax dëgg yàlla taxawaay bi rafet na ba ba pare waaye nag doyut ndax lu fi nit def rek ñun la ko defal te liggéey bi suñu liggéey bopp la kon ñi ngi leen di sant bu baax a baax yéen waa Moukhaddamatoul Khidma cant koo xam ne am na tàmbali waaye amut euh, amutub yemukaay ndax euh, liggéey bu mel nii euh, képp kuy murit war na la waaye rawatina ñun ñi ne ci dëkk bi di fi yaxantoo suñu wërsëg yëpp ñu ñu warlul ko Sëñ Tuubaa kon yéen ñi ngi leen di sant cant goo xam ne ndax organisation mucc na ayib mucc na ayib lool ndax la nga daan gis faneen di ko yéem boo ñëwee fii day mel ne la ngay gis fii sax moo gën a yéemiti la nga daan gis kon ñu ngi ñuy ñaan yàlla dëgëral leen bari bépp naal bu ngeen ci am Euh, yàlla sottal ko lu kawe njort sax te xam nañ ne lii tàmbali rek la ci yéen li mu yéeme yéeme ab tàmbali rek la ci yéen euh, euh, te tàmbali boobu incha allah day gën a jëm kanam rek ndax liggéey bi Sëñ Tuubaa moom amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am day gën a jëm kanam rek incha allah ñu fa yéene ko ànd ak yéen nag donte dem nañ ba kenn war a des ak yéen ci liggéey bi ñun lay doon incha allah te lépp luñ ci def rek xeeb nañ ko bëgguñoo xam sax nu mu toll ndax yéene ji ëpp na loolu. te rus nañoo taxaw sax naan def nañ ci nangam ak nangam ndax dañoo jàpp ne lu fi dërëm bu fi nit def ñun la ko defal ku fi def milliard euh, xa ñun ko defal bu dee dërëm la naw euh, euh, xeeb nañ ko waaye bu dee milliard it ko kon ñuy santaat waa Moukhaddamatoul Khidma bu baax a baax di sant mbooleem ñun àndal ci 36 marché yëpp ku nekk am na ndaw lu fa jóge ñëw xat-xati jamono moo tax waaye mbooloo mi sax mënoon naa gën a ndax yéene yi ëpp na ko. di sant bu baax ci teewaay bi. di sant yàlla d'abord di julli ci yenent bi di sant euh, suñu président sëñ Fallou ak suñu présidente soxna Yacine Diop mii ma taxawal di rafetlu bu baax euh, daayira bi nga xamante ne bii ñoo ñu invité fii ci ndogu yi di rafetlu liggéey bi bu baax a baax di soññ tamit suñu mbokk yu Aziz nga xam ne délégation bi waroon na ëpp lii waaye euh, nii la ko yàlla bëggee te jot moo xaw kii rek waaye délégation bi ëppoon na lii. bu ñu ñëwee tamit gis nañ fi loo xamee kawe na suñu njort wax dëgg yàlla daral ngeen ñu ndogu yi macha allah njóobeen bi kontaan na si wax dëgg yàlla dara manqué wul xanaa di soññi sama bopp di soññi sama mbokk jul jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk Femme Aziz kenn ku ci nekk ñu jël sa gën a def si yitte si si si sa taxawaay si jumaa ji ndax am na solo di rafetlu bu baax a baax a baax teewaay bi ñu fi teew suñu góor ñi di rafetlu bu baax seen teewaay di sant euh, ñëpp di gërëm ñëpp wax moo xaw a metti rek waaye ñi kontaan bu baax a baax a baax loolu doon kàddu yi nga xam ne kon ñooñu waa ACIS yi ñu ngi ko doon yëkkati ginnaaw ba ñu demee ci jumaa ja ngir xool liggéey bu waa Muxaddamatul Xidma ña ngi ko fay amal mbokk yi di ñu topp ci 103.5 euh, ci rajo UCAB ak ci télévision bi UCAB TV live YouTube wala Facebook euh, ni nu ko baaxoo mbokk yi altine bu jot. jàngatu baay Cheikh tey Cheikh Ahmad def taxaw seetlu ci wàllu état civil doon bërëb bi ñu wute kayitu juddi ak ñoom seen liggéey ba gàllankoor ya jàngatu baay Cheikh ak Cheikh jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci UCAB FM. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi état civil bu Touba dafa tawat waaw dafa feebar mbokk yi am kayit ci dëkk bu selli bii. mbokk yi fitna la déclarer sa doom ci mairie bu Touba fitna la dangay jóge fu sori paas lu seer dox ci naaj wu tàng yu ba yegg si ñu delloo la ne la xaaral ñetti weer mbokk yi boo dellusee ñu ne la signé guñ ko ndax lan jafe-jafe signature la ñu am yàgg na fi de waaw waaye keroog ba kenn ci jàmbaar yi nga xam ne ñoo doon signé kayit yi di officier d'état civil boo xam ne nii ku nangoo liggéey la ku sawar te jub la liggéey bi bëri na amuñ benn considération bëri na ay risque nag ci borom njaboot tekki na ay ndombay tànkam jafe-jafe yi gën naa tar bi ko remplacé ancien sous-préfet ba léegi mënta tàmbali liggéeyam ndax lan ata ngi nii mu ngi ci mairie bi amul bureau rax ci dolli agent yi nga xam ne ñooy liggéey ci état civil bi mbokk yi joxuñu leen benn gëdd amul lenn lu leen di sawarloo te ñëpp xam nañ ne ay jàmbaar lañ ndax liggéey bi kat ëpp na leen loxo am na ci ñoo xam ne def nañ lu ëpp fukki at ci mairie bi amuñu CDI salaire yi ñu leen di fay sarax la daanaka amul lenn lu leen di sawarloo liggéey bi bëri na te ëpp na leen loxo ay jàmbaar lañu de jamono yi nga xam ne état civil bu Touba mu ngi dund jafe-jafe yu tar yi recruter nañ fonctionnaire retraité di ko fay salaire boo xam ne boo ko xaymaa mën naa fay fukki agent ak ñett yuy liggéey ci état civil bii jàpp ngeen ni lii jaadu na bokk fonctionnaire bu retraité nga jël ko ci cabinet maire di ko fay salaire boo xam ne mën nañ cee fay fukki agent ak ñett loolu war naa xewee ci dëkk bu sell bii di Touba mbokk yi yittewoo ay ndaw yu ko taxawu yu ko liggéeyal ñuy jël ay retraité di leen fay salaire yoo xam ne mën nañ cee fay ay ndaw yu bëri yu sawar yu amal njëriñ dëkk bi mbokk yi lii mooy tawat ji daal état bu Touba mbokk yi a yóbbu ñu gën a jege askan wi te ñu jàppoon barab yi ñu ko war a def te fii may wax ak yéen ministre de collectivités locales signé na ko bu yàgg mbokk yi tey kayit yay xaar bés bu rafet lu tax duñ ko jëli lu tax duñ ko woo ñetti weer a ngi nii di ko xaar mbokk yi te bu ñëwee war a mën a yombal askan wi ci jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko ci wàllu kayit ñaata gone la fi seen avenir yàqu ci jafe-jafe kayit mbokk yi ci jamono ji ñuy soññee ngir nit ñi ami kayit mbokk yi la deuxième ville du Sénégal seen état civil di dund lii ñu wax décentralisation ñaata at ñetti weer ñuy xaar ngir jëmmal loolu tawat ji dal état civil bu Touba nañ jox gëdd officier d' état civil yi signé liggéey bi bëri na risques yi bëri na considération yi néew na nañ jox gëdd agent yi nga xam ne ñu ngi xëy bés bu set di taxawu askan wi ci ñu amu kayit utal leen ndàmpaay lu leen di sawarloo xoolaat seen payoor noppal askan wi ci jaabante yi ak di xaar ñetti weer ngir jot say kayit mbokk yi lu xew fi jamono toll la deuxième ville du Sénégal war na noo dund jafe-jafe yii fi jamono toll war na jël ay retraité di leen fay te ay ndaw yu sawar nekk ci dëkk bi xam mën amal dëkk bi njëriñ mbokk yi laaj rek mbokk yi ku xam wax ma nga war a signé di adjoint au maire di ancien sous préfet ba léegi mënta tàmbali liggéeyam ndax lan at a ngi nii mu ngi ci mairie bi amul bureau amoo bureau ñu jël bureau di ko jox ñoo xam ne kenn xamul lu ñuy liggéey ak di fay ñoo xam ne du ñu liggéey lu xew mbokk yi ndax dañ koo yëgul jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci UCAB FM Cheikh Amar ñu di ko sant di ko gërëm ci jàngat boobile incha allah rabbi di ko joxaat daje ci beneen altine ci beneen ponk bii danañ ko tollanti ci kàttanu borom bi ci sunu xibaaru guddi gi mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci jotaayu xibaar yi laataa ñuy yëkkati jotaay bi ñu fàtt leen la ca gënoon a fës. yi fii si UCAB bokkoon na ca la gën a fes ci xibaar yi loole di garage dakaar bu bees bi ak place ya fa nekk doon cantine yu promoteur bi di Malick Niang moom moo ko doon liggéey boobaak léegi nag ña ñu ko jox ne te nañ cee jot ndax lenn la eggut lenn la daanaka sax tàmbaliwuñu ko nee na buntu bu ne fëgg nañu ko boobaa boobaak léegi amuñu saafara tax nag tey yi ñu woo taskatu xibaar yi ngir yëglu jot ngeen lu ñenn sa ñoom la nga xam ne kon jot nañu ko coo fësal ci biir euh, jotaay euh, xibaar yi waa ACIS doon kuréel gu lëkkale commerçant ak industriel yi Touba demoon nañ ca jumaay Touba ja doon nemmeeku ji liggéey bu waa muxaddamatul xidma ñu ngi koy def muy jotaay waxtaanee waaye tam ndogu yu dañu koy bàgg danu koy berandeelal ñi nga xam ñoom ñoo di askan wi taxawaay bu amal nañu ko ca lañ ca fësal ci ay kàddu jot ngeen koo teewlu ci biir jotaay ko xibaar yi ba tey àdduna nu jëmee ci leneen mu soxal rek wàllu ko euh, mbale mi nga xam ne kon kuréel gi doon fondation soxna yi mun Muntaxa moom mooy seetal lenn ci mbedd yi ñi ngi nag ci digg-diggal bi xàll wi jógee Mbàkke Touba jëm ci école Serigne Mourtada yi xàll woowee nag ñu fàkk yenn ci bërëb yi mbalit ya fa nekk ñu dindi ko dagg poftan ya setal ko waa fondation bi nag xalaat lu ni mel Moustapha Lo Junior àndandoo ak mairie bu Touba ci lëkkaloog waa UCG ñu doon amal lu mel lu jëm ci wàllu woowee jot ngeen teewlu la nga xam ne ko jot nañ ko caa leeral Cheikh Amar la ñu lool na ci jàngatu Baye Cheikh doon ponk bi këmmal jotaay bi mu mel ne waxtu wi jot na ñu war a dem ca institut Al bu Ndam fa oustaz Sidi si Sokho euh, oustaz maa ngi lay nuyu. waaw sëñ Pape maa ngi lay fay. mu mel ni euh, tey mooy euh, ci kattanu borom bi ñaar fukk ak juróom-benneelu fan ci weeru koor kon ñaar fukk ak ñeenti fan yoo xam ne wala boog ñaar fukk ak ñeenti jotaay yoo xam ne ansaar dinal islaam yi ñu ngi koy amal jotaay bi tey waxtaan wi lan la fas yéene doon ci bëccëgu ñaar fukk ak juróom-benneelu fanu koor gi ak kan moo ko fas yéene taxawe waaw euh, jërëjëf euh, Pape Saer comme ni nga ko waxee léegi rek euh, tey mooy suñu ñaar fukkeelu jotaay ak ak benn wala boog ñaar fukkeelu jotaay bi ak ñeent. ak ah. ñeent. <laughs> ñu nekk ci ñaar fukkeelu jotaay ak euh, wala boog ñu nekk ci weeru koor bi. ci ñaar ko juróom benn fan ci weeru koor. jërëjëf. ndax daa ñaari fan yu ñu bëroon benn bi ma koy fàttaliwaat. Mhm. mooy ren euh, envie de rentrée bi ñu doon def foofu ci UCAB. Mhm. keroog mu xatoon. Ah. beneen bi doon dogal bi wàccoon doon wàcc liggéeyu ko Oustaz Ndiasse lay keroog it mu doon bés bu xat. Mhm. ba tax nag yooyu yëpp euh, mooy ñaari gàllankoor yi amoon na fa. wax nga dëgg. kon euh, bu ko defee tey rek incha allah ñu ngi fas yéene ànd ak mbokk yi ci benn tomb boo xamante ne dina yitteel ñëpp nag. ndax hmm. tey ji incha allah dañuy waxtaanee ci lekk yees yi ñuy gis. nga xam hmm. lekk bu nekk day xaw. lekk yooyu ana naka la demee ci wér gu yaramu doomu aadama incha allah. Hmm. Oustaz Balla Mbengue moo ñu koy fas yéene waxtaanal ci kanam tuuti rek euh, sëñ Pape Serre. borom kéemtaan ko tey daanañ gis ay kéemtaan wala dañ dégg kéemtaan. waaw ci lekk keeg naan gi. <laughs> jërëjëf léegi léegi lay doon incha allahu rabbi mbokk da ngeen ko mën a dund en direct ci rajo bi ak ci télé bi ngeen mën a jàkkaarloo ñoom ci waxtaanu ñu ngi koy amale ca institut Al Azhar wala bokk ca jumaay ndaam jokkoon foofee lan ko fas yéene amale waa daayira ansaari diinal islam yi di ko taxawu bëccëgu weeru koor gu jot kon léegi léegi lay doon ñu sant leen gërëm leen Cheikh Bey moo kon ca machine bi Pape Sayer Mbaye ci gi ngeen ñu doon déglu ci rajo bi 103.5 di téeméer ak ñett tombal juróom wala ci ñett www.sunfm.com télévision bi ñu ngi ci ñetti www.a2itv.net YouTube ak Facebook fu ngeen bind ICAP TV live jàkkaarloo fa ñun ñu leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal sunu bopp Buur Laaw moom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla defal kenn lu jàmm jërë ngeen jëfati mbokk yi.